amee koo xamante ni un ministre de la république la nga xamante ni président Macky Sall dafa am ci moom yaakaar jël ministère teg ko ci loxoom muy ministre de la femme mu war a ñëw ci dëkk bi war a indi ay financement ñun ñu bokk ci jigéenu président Macky Sall te ku ne gis nga liggéey bu am solo bi nga xamante le président Mamour Diallo def na ko ci présidentielle yi def ko ci parrainage bi kon ñun bu fekkente ni le ministre de la femme mi ngi ñëw ci dëkk bi ñun waruñu cee des ginnaaw loo xamante ni dañ koo ñaawlu trop. Mhm. c'est un ministre de la république. war a tëddee njaaxaanaay. dëgg la amuloo teg nañ loolu waay ah. te lii nga xamante ni moom message bi mu fi jàllale nga xamante ni nee na ministre maire Moustapha Diop sama mbokk la sama xarit la loolu ñun bañuñu ko parce que nangu nañu ku nekk jàppale sa mbokk. ku nekk jàppale sa xarit. mais dafa yore loo xam ne askan wee ko bokk. le ministre Moustapha Diop moomu ko. way ko le président Macky Sall daf ko génnee pour jigéenu Sénégal yëpp. kon nag buy ñëw ci dëkk bi ñun am nañ ci cër boo xamante ni cër bu importance la. te ñu xam ne nag le ministre Moustapha Diop il n'est pas majoritaire. way il n'est pas majoritaire de cette ville-là. te am na lu bari loo xamante ni firndeel na ko Mamadou Mamour Diallo parrainage bu 30 000. moyen la indi kon loolu am solo la